wala aqiqa ak gàtt ak tudd muy ngént wa sayd ak rëbb wal xitaani ak jong mu di xaraf bunt bi loolu lay jàngale wàllu tabaski ak rendi ngénte rëbb ak wàllu xaraf lim njëkk jàngale nag mooy tabaski mu ne wal udhiyatu tabaski sunnatun sunna la waajibatun bu faree tabaski sunna la su dëgër ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ne digal nañ ma tabaski muy sunna ñeexal leen waaye nag laa man istataa ci ku ko man ku man tabaski la tabaski nekk sunna ci moom nga ne ko kan mooy ku man tabaski mu ne mooy koo xam ne soxlawul njëgg ci at ma maanaam du soxla njëg gi ci at mi yépp bu ko xasee jënd xam nga kooku ko mën yombut jàppal ne daal tabaski sunna la ci gor jaam tabaski du sunna ci moom bu nekk kuy xaj ci minan kuy xaj ci minan xaj yu la war a joxe tabaski waru ko dégg nga te na ko man ku ko man mooy koo xam ne du soxla njëgg ca at waaye koo xam ne boo jëndee tabaski bi balaa yàgg nga soxla waa njëgg si soxla boo xam ne mënul ñàkk su boobaa tabaski warul la xale mën na koo génne moom tabaski boo amee xaalis dana rey tabaski jigéen kuy tukki ak ku teew ñoom ñëpp tabaski war euh, sunna la ñoom rek laa wax de jële jirim la sax moom xale ba dana tabaski ci lam nem xam na ko Maalik dañ koo laaj ndax jirim dana tabaski ndax xam nga bu tabaski bu yàgg yàlla ji jeex Maalik ne ne tabaski wërsëgam yàllaa ko yor de dégg nga kuy xaj ci minan kooku du tabaski amaa koo xam ne ma nga minan rek te moom dana tabaski ku nekkul minan it day tabaski de waaye nag kuy xaj waaw ci minan kooku xaj yoo ko war ko boobaa loolu moom tabaski du ko war ku ko mënul tabaski waru ko denga waaye nag su fekkee dégg nga mu tam koor la moom moom da naa leb joxe ko waaye tabaski moom yow mi ko mënut leb sax santuñ la ko wàcc na la rek ndem mënoo ko wuuteeg mutam koor mën ngaa leb joxe ko ndax mutam koor faratala la tabaski sunna la de xeveer tabaski waru ko am na ñu ne nag war na ko waaye bu ko defee du baax xeveer daal jàpp na am na ñu ne mboolem jaamu yàlla yi war na ko rek su ko defee du baax waaye nag su ko defee ta ndem dugg ci lislaam du baax tabaski nag kenn ku nekk moo ko war a génneel boppam génneel ko ñam ko war a dundal commencé ka commencé ka mu tam koor rek ni nga xamee ne yaa ko war a génneel sa bopp ak ña nga war a dundal tabaski noonu la mel dégg nga waaye nag yow da jënd ab gàtt rek rendi ko xéene ci ña nga xam ne da leen a war a dundal ñëpp ñi ki doom yu góor yi waaw fekk mataguñ mu kalaf ak yu jigéen yi fekk ba ñuy am jëkkër ba seen jëkkër xaraf ak ñoom de wala doom yi nga xam ne mat nañ mu kalaf sax waaye mënuñoo liggéey ndax dañoo lafañ wala ñu dof ñoo yaa leen war a génneel génne gi nag du ku nag da koy reyal tabaski waaye da ngay rey benn gàtt rek waaw ko defee nga yéene ci waaw mboolem ñi nga xam ne yaa war a dundal sa ñaari waajur yu ñàkk yaa leen war a dundal kon yaa leen war a génneel tabaski. sa jabar nag moom yaa ko war a dundal gaa yaa ko war a génneel mutam koor gaa waaye tabaski moom waroo ko dundal waroo ko génneel moom jabar kooku waru la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne na ngeen joxel asakaay mut asakaay na ngeen ko joxel moom asakaay mutam koor ña ngeen war a dundal kon nag moom asakaay mutam koor moom ka nga war a dundal danga ko war a génneel dire jabar la waaye eh, eh, tabaski moom waaw نت دکو گے جم دے جما نجنا فانی مم مرائے کو بیس بن جک بھی بو مام جل پے چرے ورارے دیگنتی ببو بھائی جان بار چرے بگو کو چیرائی دیگنٹی ٹس بار ناکی جانتی diggante yooyu ku ci baax na gaawaa lañ koo sopp bu jant bi sooyee nag ku ci rey baaxut ba fajar di jot bisu ñaareel bi nag moom bu fajar jotee rek mën nga rey diggante boobu ba jant bi di fenk boo fa baax na waaye dañ ko sib bu jant bi fenkee nag ba tusubaar kooku ku fa rey nga def nga lañ bëgg fa parce que foofu lañ bëgg nga rey foofay waxtu rey su ko defee nag diggante tusubaar ba dégg nga nu mu tuddati sax jant bi di soo foofu ku faray baax na waaye sim nañ ko guddi gi ku faray du baax bisu ñetteel bii noonu la fajar daal ba jant bi fenk ñu sib ko bu ko defee nag bu jant bi fenkee ba tusubaar foofu lañ bëgg tusubaar ba ba timis ñu sib ko waaye guddi gi moom ku ci rey du baax dégg nga tabaski ñetti fan yooyu ci lañ koy. génne xataab def ne waa dëkk suñ bañee ren di tabaski danañ xeex ak ñoom comme ni nga xamee ne buñ bañee noddu darañ xeex ak ñoom pour ñu noddu buñ bañee julli julli mbooloo danañ xeex ak ñoom pour ñu julli mbooloo moo tax ñuy wax ne julli bakkan nangam ak nangam bakkan yaa ngi tuuru kon waruñoo julli mbooloo xamuñ ñu l'islam leg leg sax mu tour bakkan ngir bañ gi baña taxawal julli mbolo julli mbolo lu for la dañ xex ak nit wa dekk bo xamne dañ ko baña def uteeg azakaay mutam koor mom azakaay mutam koor mom, dekk bu ko baye duñ xex ak mom dégg julli tabaski tamit wala korete dekk bu ko baye duñ ko duñ xex ak mom waaye jëmmi ren di tabaski moom danañ xeex ak moom borom saraa bi nag na man taxaw naa ci waxu xataab ndax lu tax boo bàyyee ren di tabaski ñu xeex ak yow te boo bàyyee mutam koor duñ xeex ak yow te tabaski sunna mu mutam koor di farata loolu moom nee na gag na si wax na dëgg nag gag dégg kon képp koo xam ne mën na tabaski mën na tabaski rek dana rey gàtt tabaskee ko waaye bokkaate nag daganut bokkaate mooy lan mooy yow nga joxe dara man ma joxe dara ku nekk joxe dara su ko defee ñu bokk jënd benn gàtt rendi ko tabaskee ko su boobaa ñun ñëpp kenn xamul tabaski rek laa wax de ndax loolu daganul dile abu hanifa ak shaafi daganal nañ ko si bu fekkee ñu bokkaate ëppuñ juróom-ñaar nit juróom-ñaar nit jëm suuf daal mën nañoo bokkaate jënd gàtt rendi ko loolu dagan na ca ngiram Abu Hanifa ak Shafi waaye daganul ci Malik Malik la ca dagan mooy bokkaale ci tiyaaba maanaam bokkaale ci tiyaaba dafa am ñaari anam benn bi mooy yow mi nga xam ne nii yaa jënd sa gàtt di ko tabaske nga di ko rendi yéene waale ci mbooloo su boobaa loolu dana dagan waaye nag foo ay charte bu fekkee ka ngay boole waale du yaa ko war a dundal force dundam warul la si charia force ni ki sa mbokk yi ñooñu dundal leen du war da ngay baax rek dundal leen dund daal say waajur ak say doom ak sa jaam ak ñooñu nga war a dundal waaye sa mbokk yi moom ñoo ak baay ak baay wala yaay wala ngeen bokk wala doomu baay tax yi wala baay tax yi ñooñu dundal leen warut

ñaareel bi mooy na fekk yaa ngi koy dundal sa mbokk boobu yaa koy dundal di la dund gi warul la ñetteelu sart bi mooy na nga bokk moom dëkk ñetti sart yi bu ci xëtt doo ko ci mën a boolewaale dégg kon danga jënd sa gàtt mbokk moo xam ne ni sa mbokk la nga di ko dundal ngeen bokk dëkk kooku mën nga koo rendi waale yéene waale ko su fekkee nag bokku leen doo ko mën a yéen waale di la yaa koy dundal di la bokk dëkk su fekkee yéen bokk dëkk waaye dundaloo ko su boobaa doo ko mën a yéen waale su fekkee yaa dundal waaye bokk leen dëkk su doo ko mën a yéen waale amaa koo xam ne dundal ko daf laa war kooku moom nekk gi nekk sa mbokk rek nga war koo dundal doy na di la bokk leen dëkk mën nga koo digalaale xam nga léeg-léeg am koo xam ne dundal ko daf laa war mooy koo xam ni bokk ko dundal mu dee koo xam nga dundal ko dalaa war waaye nag du sa mbok moo tax kon bu dee dundal ko dalaa war da wax ne foo mu nekk sax mbokk koo xam ni mbokk yi ci ko dundal koo war la naka noonu nga di ko dundal tamit taxi yaa koy dundal bu jege na la waaye nekkul ne yaa koy jox dund keneen na koy jox dundu su boobaa doo ci kii doo ko boole wàll kon bu dee koo xam ne dundam ko daf laa war na nekk sa mbokk te nekk koo xam ne yaa ko war a dundal ñaari sart yooyu doy na du sart loolu mooy bokkaale siyaaba loolu Malick nangu na ko naka noonu it Malick nangu naa yow nga jënd benn gàtt boole ko am mbooloo yow bokkoo ci yow xam nga bee da nga koo ren di boole sa bopp yéene wàll leen ci waaye fii da nga boole am mbooloo te yow bokkoo ci loolu moom dagal na ci lu benn sart. dégg waaw mbooloo ma nga ko jox na lu bari bari baax na bu neex nga jël gàtt may ko waa école yëpp baax na di la ëpp nañ juróom-ñaar boo neexee nga ren gàtt yi dugalaal si ñu bari luñ bari bari baax na ndem rek sart ñu waxoon daje na ci ci ñi ngay dugalaale képp ko ren di gàtt dugalaale ko xamal ne moom tabaski wàcc na ko jële am na xaalis bu ko neexee du jënd tabaski boo jëndee gàtt laale ko wala nga jël benn gàtt may ko am mbooloo ñooñu nga ko may bu ñu rendee gàtt boobu rek ñoom ñëpp tabaski wàcc na leen waaye nag dégg nga du du duñ wax ne ka am xaalis foo mu jënd déedéet tabaski wàcc na ko bu fekkee yaa jënd sa gàtt nag rendi ko yéene waale ci aw nit koog nga si yéene waale amul amul benn xaq ci yàpp yi yàpp yi moom yow borom gàtt gi yaa ko moom dégg nga su fekkee nag dangaa jëlab gàtt dugal ci koo xam ne nii moom daganul nga dugal ko ca yéen ñaar ñëpp sàmm leen tabaski loolu jar naa bàyyi xel dégg nga nga jël sa gàtt gi xénn ci koo xam ne ni waroo ko ci yére ni ki jàmbur boo boo xam ne daf laa sori yéen ñaar ñëpp amu leen tabaski dégg nga waaye nag dàqwantuur rek ne mbooloo su fekkee dañoo ñàkk amuñ dara te buñ buñ tabaski wut am gàcc dana dagan ñu rey Shaafi ak Abu kenn ku nekk ci ñoom daal di jël dara joxe ko ñu bokk jëndam nag wala ab gàtt tabaskee ko looloo gën a nekk sutura moo gën ñuy xaawi seen sutura nañ looy Abu Hanifa ak ci loolu waaye nag bu ñëpp juróom-ñaari nit dégg nga waaqalu maa li gën a néew ci li nga xam ne yu ci wu dana doy fiyaaj ci tabaski mi ne asnaani ci ay at al jisu moo di jisu mi ne ci xar tabaski li ci gën a néew ci wàll at bu dee xar la mooy jison jison mooy lan woo moom jison ibnu sanatin mooy doomi at xar mi ci gën a néew bu mën tabaski mooy bu mën a am bu am at ba dugg ci atam ñaareel ga dugg gu leer naññi xar mi na am at ba dugg ci atam ñaareel ma dugg gu leer naññi waaye xar moo xam ne nii xamagut loolu kooku matu tabaski waaye nag xar wutee nañ si waqila am na ñu ne ibnu samaanati ashurin doomi juróom-ñetti weer la loolu jëlee nañ ko ci Malik de ne xar daal boo amee juróom-ñetti weer rek mat na tabaski waqila wax nañ ne ibnu asharti ashurin doomi fukki weer la loolu ibnu bu moo ko wax waaw nee na xar boo amee fukki weer rek mën na tabaski soxnuun sax wax na ne juróom benn weer mën na tabaski kon ñeenti wax moo ci am bi ci gën a lëng mooy lañ la njëkk wax xar mu am at ba dugg ci atam dugg gu mat sëkk looloo gën a lëng ñu ne déedéet xar mi bu amee fukki weer baax na kooku nu wax bu moo ko wax ñu ne xar mi bu amee juróom-ñetti weer baax na kooku nettali nañ ko jëlee ci Malick de soxna nee na xar moom bu amee juróom benn weer rek mën na tabaski ñeent wax yooyu ci am waaye bu njëkk mi moo gën a dëgër wa saniyu ak saniyu minal maati ci bay bu dee bay li gën a néew ñu mën koo tabaskee moo di saniyu woowu moom maa aw faa mooy lu matal sanatan at boo daxala mu dugg fi saa yéen si atam ñaareel ma dugg gu leer nañ ñi bu dee béy la foo ma am xat ba dugg si atam ñaareel ma am ci lu lu toll ni weer loolu mooy dugg gu leer nañ ñi nga béy moom amul werante moom foo at mat moom moom dugg si atam ñaareel mi lu toll ni weer pour mu mat tabaski de waaw mu aw faa mooy lu matal sanatan at boo daxala mu dugg fi saa yéen si atam ñaareel mi. wala yu suudu doy fi daxaayaa ci tabaski minel maati ci bay wal baqari ak nag wali bilaa gélem illa saniyu lu mooy saniyu tabaski bu dee béy la wala nag wala gélem saniyu moo ci doy bay nag waxoon nañ mooy bu am at bu dugg ci saniyu boobu amma nag nag moom lay wane wa saniyu saniyu min al baqari ci nag maa daqala mooy lu dugg na fi sanati rabia ci atam ñeenteel ma saniyu ci nag mooy boo xam ne am naa ñetti at yu mat sëkk ba dugg ci atam ñeenteel ma boobu moo man tabaski ci wàllu nag wa saniyu saniyu min al ibil ci gëlëm ibnu sita siti sinina mooy doomu juróom benni at maanaam lim mu bëgg a wax mooy sa niw ci gëlëm mooy ba am juróomi at ba dugg ci juróom benneel ma nag nag mooy ba am ñetti at ba dugg ci ñeenteel ma loolu rek ma tabaski ci wàllu naga gëlëm foofu ñu am at toll noonu tabaski ci xeet yi rek la war mooy xar béy nag gëlëm bépp xayawaan boo génnee tabaski yu yi baaxut dila sax kar la moo xam ne ni yaay ji xar la baay ji njaaxal la baaxut moo xam yaay ji mooy njaaxal la baay di xar wala baaji mooy xar yaay ji di njaaxal la baaxut dégg nga lañ la wax nag ne matul tabaski rek xamal ne moom matul hadiyu boo reyee ab rab ca màkk it mënu mënu koo fay waaye mënul jottali de dégg nga wafoolu daani xaru kuy xari fi daaya ci tabaski afdalu moo gën ëpp tiyaaba min xisyaana ci tappaange yi de xar moo xam ne kenn tàpput ko mu yore yàpp wu neex amee bind mu mat sëkk moo gën xar moo xam ne dañ koo tàpp ndax xar muñ tàpput moo gën a neex yàpp su fekkee nag bañ tàpp ba moo gën a duuf soo waa xar muñ tàpp moom mooy gën rek laa wax de waxis yaan waa tàppaange ga afdalu moo gën min inaasia ci jigéen yi waaw xar ya mu muñ tàpp moo gën xar mu jigéen dégg nga booy léegi tàpp nag lañ ci na mu mooy buñ dagg sàkkara ba وائ یا کوئی نو خرمجگین ابد الگور خرمجگین موغن بھئی wamin inaatiha moo gën baywu waaw jigéen rek laa de xar mu jigéen moo gën baywu góor moo gën baywu jigéen ndax yàpp xar moo gën a neex yàpp bay ndax te tabaski ba gën a neex rek lañ ci soxla waaye wa fuxulul maasi baywu góor afdalu moo gën min inaatiha ci baywu jigéen baywu góor moo gën baywu jigéen way naatul maasi bay wu jigéen afdalu moo gën min al ibili ci gëlëm wal baqara ak nag de bay wu jigéen sax tabaskee ko moo gën gëlëm ak nag gëlëm ak nag nag wutee nañ bu ci gën ndax dañoo wutee ban moo ci gën a neex yàpp su dee gëlëm a gën a neex yàpp moo gën nag su dee nag gën a neex yàpp nag su boobaa nag a gën léegi nga kon gëlëm ak nag wutee nañ bu ci gën de waaye daal béy wu jigéen afdalu moo gën mel ne ci gëlëm wal baqara nag fi daxaayaa ci tabaski waa mal xadaaya waaye hadiyu fal iblu gëlëm afdalu moo gën su mal baqara topp nag su ma daanu topp xar su ma maasu topp bay bu dee ci hadiyu la gëlëm moo gën teg si nag teg si teg si béy ndax hadiyu moom ba ëpp solo rek moom moo gën hadiyu bi gën a rëy rek moo gën ndax foofu duuf lañ fa soxla. waaye tabaski moom yàpp yàpp wu neex lañ fa soxla booy wut tabaski nag bëgg nañ nga wut kuy fexeel moo mu nekk kuy moo xam ne mu am béjjën la boo xam ne ni fa muy gooree muy xóom dafa ñuul tànk ya ñuul bët ya ñuul kuk dégg nga wutal kuy wu mel noonu la muy lekkee ñuul ndax kuy wi nga xam ne moom la Seydina Ibrahima jotee woon doomam Ismaïla noonu la meloon dégg bu weexit moo gën wutal bu weex rëy béjjën rëy bët wutal bu mel noon rek laa wax nga tabaskee ko de walaay joosu dagan fi seen ci dara min zalik ci loolu naa war a pat tabaski bu pat baaxut ci wala maydatun du caagin ji feebar de waaw bu patt mënu tabaski bu patt mooy lan mooy boo xam ne leeru bët ba yëpp dem na benn bët ba leer gi yëpp a dem wala boog li ëpp ca leeru bët ba sax dem na di mu ngi gis waaye tuuti lay gis kooku it bu pat rek laa wax de bu patt la dilee mu ngi gis tuuti rek dilee peeru bët baa ngi xulleeku di xool waaye daal li ëpp ci leeru bët ba dem na dafa patt dégg nga kon nag waxatuñ la bu gumba bu ñu bu patt moom bu gumba waxuñ ko dire dafa duuf mënul tabaski wala may da du jaageen du feebar du feebar mënul tabaski feebar bu leer feebar bu leer mooy ren mooy ko xam ne nii mënul soppandiku ni moromam yi di soppandikoo waaw manaam ni moromam yi di dawee di dem mënul sa ànd ak ñoom ndax feebar ba kooku mënul tabaski ndax feebar bu leeree dafay yàq-yàpp yàpp yi mën naa jëlaale feebar ba te soo ko lekkee mën na laa lor loola waral ñu aaye ko de wala naat jaa du caagin aji soox albaynu ba aji leer waa dal waa sooxam tabasiku boo xam ne nii dafay soox soox gu leer naññi waaw nga xam ne nii mënul joti gàttee sax kooku mënul tabaski wala aj faa du aji làpp bi nga xam ne laa chama déete geres fiaa di nekk de lu làpp làpp goo xam ne nii waaw sax geres kooku mënul tabaski noonu la ko firee kon lu làpp mooy lan mooy lu amut gerees ñii ne déedéet duñ xool am na gereesam amut gerees waaye gàtt bu làpp mooy boo xam ne yuur euh, yax ya amut yuur loolooy gàtt gu yàpp làpp bu fekkee yax ya am na yuur di la amut gerees sax kooku làpput mën na tabaski ndax gàtt yu bari duñu am gerees ñeenti ay bii mooy bu patt ak bu feebar ak buy soox ak bu làpp ñeenti ayib yi borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne dañ ko war a moytu ci gàtt gi loolu moom ñëpp dëppoo nañ ci jëlee nañ ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo laaj lan moom lañ war a moytu ci gàtt ak tabaski dégg ne bu bu buy soox soox gu leer mooy boo xam ne mënu dabi morom ya ak bu patt pat gu leer ak bu feebar ak bu lapp rek waaw bu làpp mooy boo xam ne yuur yi waaw yax yi amul yuur ndax làpp gu tàdde naka noonu it am na yeneen ayib yoo xam ne war nga koo teet ci gàtt yi moom lay wax ne woyu taqaada dañ teet fiyaa ci tabaski bi alaay bu ayib kulloo lépp mboolem ayib rek moytu ko gàtt bu amul benn ayib daal moo gën bu am ayib am na ayib yoo xam ne dafa ñaawo ni ki bu dof ba nga xamee ne anut ak sagoom kooku it matu tabaski na ayib gu ñaaw la yore matu tabaski ak gàtt boo xam ne dafa fër kooku it matu tabaski mooy lekk boo mënu tuta def dara kooku matu tabaski moom it caay bi ñaaw yi la bokk ak gàtt goo xam ne dafa am lu dagg ci ci yaram wi waaw te du geen du nopp dana ñëw ci geen ak nopp du tàpp du tàppaange it maanaam du awra yi su boobaa gàtt googu am lu dagg ci yaram wi matu tabaski bu bokk te yooyu mu wax naka noonu boo xam ne

illaa an yakun mu nekk yasiran di lu new maanaam gàtt gi bu fekkee nopp bi dafa dagg ñetteelu xaaj boo xaajee nopp bi ñetti xaaj benn xaaj ba dagg na wala dagg matul benn xaaj ba kooku man mën na tabaski dégg nga wala nag nopp gi dagg wala mu xoteeku ñooyam bu dee boo xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi moo dagg wala loolu xoteeku loolu mën na tabaski dégg bu dee boo xaaj ñetti xaaj nag li dagg ëpp na ñetteelu xaaj ba kooku matu tabaski rek laa wax de dégg nga bu dee li dagg si noq ba man ëpp na ñetteelu xaaj ba matu tabaski wa kazalik nekk noonu alxatu nopp bu dagg nopp bu dagg bu xoteeku ñoo yem wa maksuratul xarni ak aji damu béjjén in kaanam nekk na yut mii di naaj ci maanaam bu dee wérut la ci namm falaa joosu dagan wéram yët mi nem naaj wut waaw fa zalik loolu jaaysun aji dagal la rek laa wax de dégg nga gàtt bu fekkee béjjën yi dafa damm di la béjjën bi lépp damm ba mu jeex tàkk bu dee wér na mat na tabaski su fekkee wérul nag su boobaa matut tabaski rek laa wax de dégg nga wax ci nopp loolu la ñuy wax ci geen waaye nag wutee nañ tuuti bu dee ñetteelu xaaju genn nga moo dagg gàtt boobu baaxut matu tabaski nopp moom ñetteelu xaaju bu daggee du ko yàq waaye gen su fekkee gàtt bi dañ ko bind xamul dara ci geen walla boog dégg nga waaw am na dara ci geen gaa waaye geen gi dafa dagg ba nga xamee ne ñetteelu xaaj ba moom moo dagg soo baa du baax de lu tax nopp nak ñettelu xaaj bu dagge dana baax bu ko pedu du baax ga geen nag ñetteelu bi sax bu dagge du baax nak gen dafa am yap ak waaw geres wuuteeg nopp mom der kese la waaw motax gen bu ñettelu xaaj bi dagge rek mu yaq rek la wax de dégg nga waaye gélem ak yek ak gatt yi nga xamne ni manam juru këriñ mën a tabaski yi nga xam ne ni seen geen ga amut yàpp amut gerees ñooñu moom duñu wax ne ñetteelu xaaj bu daggee mu yàqu dang naan bu daggee ba nga xam ne nii dana ko ñaawal nga xam ne boo xoolee xar mi mu ñaawal ko wala gëlëm gi ñàkk geen ñaawal ko rek baaxut su wàññeekoo ba ñaawal ko loolu baaxut waaye bu tënku ci ñetteelu xaaj ba wala yu demee noonu ndax kooku amut yàpp seen geen yi amut yàpp dégg nga naka noonu it bu dee gémmiñ ga dafa xeeñ dégg nga xet gu naqari loolu matul tabaski ndax yàqu na rek laa wax de bu fekkee daf koo dikkal dafa gaar si waaye bu dee xet gémmiñ nga cosaan la ci moom loolu du ko yàq dara nekku ci bu dee noonu la judduwaale ndax bi nga xam ne dafa gaar si feebar ci la juddoo te feebar boobu nekk ci moom ba def noonu gémmiñ ngi bokk ko lekkee mën na laa lor de amaa bu judduwaale moom moom dañuy xam ne loolu du ak feebar yàllaa ko bindee noonu rek naka noonu it gàtt bu lu mënul wax matu tabaski dégg nga lu may nag lu gi sababu waral ko ni ki gëlëm gëlëm léegi-léegi bu ëmbee du du mën a wax su boobaa loolu du ko lor de ndax loolu moom ku ne xam na ne aada la gàtt bu amul soow matu tabaski bu fekkee soow mi dafa tuuti nag waaye am na soow loolu du ko yàq de dégg yooyu yëpp yow muy tabaski ni na ko moytu ko noonu bu damm béjjën waxoon naa ne bu fekkee nàcciwut maanaam wérut matu tabaski waaye bu wéree moom mat na tabaski kon béjjën mi dina dafa damm ba ci cosaan la sax wér naam wérul rek la ñuy xool bu wéree mën na tabaski bu wérul nag matu tabaski su fekkee nag tànk ba moo dammu kooku matul tabaski rek laa bu dee tànk ba moo damm kooku matul tabaski ndax tànk moo gën a dëgër béjjën bu dee bëñ ba moo damm walla ñu foq ko moom bëñ ba la xool bu fekkee benn bëñ moo foq wala mu damm te nekkul ne dafa dem ba war a foq rek mu foq xam nga ba ñoo xam ne day foq ci aada naturellement te lii du mage moo ko waral waaye benn bëñ rek moo foq te du foq naturel comme ba dem ba mu war a foq du mage te benn bëñ la loolu du ko yàq bu dee bañ a foq bu dee ñaari bëñ la nag dafay yàq tabaski gi gàtt gi matatul tabaski amaa su fekkee dafa mage nag. wala boog dafa nekk foq goo xam ne foq ak naturel la kom comme luy màgg ba ñuy foofu ba ñuy foq yeneen ñawaat loolu moom du yàq tabaski ak nu mën a demee foq ak màggee wala boog foq goo xam ne naturel la loolu du ko yàq bu dee nag benn bëñ bi dafa damm waaw du ko yàq bu ñaari bëñ la loolu matu tabaski de am na ayib yoo xam ne moom yàqut tabaski yi waaye moytu ko moo gën mooy nopp ba bu ci dara dagg jële matu ceer ba sax bu mu dagg. bu daggee nopp kooku am na ay ga lum gàtt gàtt waaye bu dee ëpput ceer ba yàqut ko naka noonu it na nekk gàtt gu rafet bu ñaawee mën na tabaski gaa waaye gënul na duuf bu làppee te làpp gi ëpput ba nga xam ne amut num mu tuddati sax yuur bu demee ba amul yuur moom baaxut waaye nem am na yuur waaye làpp na dara nekkut si na weex na am béjjén bu melul noonu waaw yàquwut rek laa wax dem waaye gënut dégg nga in uridu lil islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi